Bienvenue dans votre chaîne YouTube Top Info TV Sénégal. mbokk internet Top Info TV Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar te di leen dalal jàpp ci seen rubrique yoonu màggal gi waaye 18 tey nag ñu leen xamle ak troisième xalifa bu Serigne Touba Serigne Abdou Ahad Mbacké ñu teelu reportage bi ak Ousseynou Tom leer gaa ngi fenk ci atum 1914 ci dëkk bi la di Jurbel bàyyeekoo ci cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak soxna Mariama Jaxate cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñetteelu xalif bu yoonu murit mu ngi ko doon ci atum 1968 wuutu magam Serigne Fallou bi mu toogee nag moom Baay Laat li njëkk doon yittee moo di fexe ba méngale ak jamono dëkk bu sell bi la di Touba tabax fa ay hôpital gendarmerie gaaru Thier ak ay marché Baay Laat ni mu yitti woon wàllu jàng ak xam-xam tax na mu tabax bibliothèque boo xam ne mi ngi toll ci cent soixante dix mille ouvrages ak ay xasida ak i kaamil alquran ñoo fay nekk Cheikh Abdoul Ahad Mbacke taal électricité bi taal lamp yi leeral dëkk bu sell bi xëcc réseau téléphone yi gas ay forage yu bëri bokk na ci aynu rahmati Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yi tamit mooy ki tabax li nga xam ne moo di résidence Kër Serigne Touba bi nga xam ne ca jamono lu toll ci juróomi téeméeri million lañu ci def leer gi fenkoon ci atum te Diourbel 19 89 ca Touba la daldi soo soox Cheikh Ahad Mbacke wuy ji boroomam fekki waay juróom ak ay magam yi nga xam ne jot nañu ko jiitu ñu koy ñaanal yàlla borom bi woyofal suuf ci kawam taxaare ko aljana waaye l'espoir de toutes les générations, Top et